bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi rahmatan lilalamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baad nu ñëwaat àndaat ak yéen ci sunu jataayu alquran bi ñu baaxoo di amal àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téerab sunu borom bi subhaanahu wa taala noo ngi war a tàmbule tey ji ci laay ji sunu borom di wax ne inna alladina jaa'u bil ifki usbatum minkum la taxsabuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بسم الله الرحمن الرحيم borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ñi nga xam ne seytaane man na leen ba ñu topp ay jéegoom ndax seytaane dafa am ay yoonam yoo xam ne ku ca jaar rek da ngay wàcc yoonu sunu borom bi subhaanahu wa taala yooni seytaane yi dafa bari yoon yu baree bari la ci kanam tuuti borom bi dana wax ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen moytu di topp yooni seytaane yi bokk na ca tuumaal ab jaambur bu jigéen boo xam ne wax dëgg yàlla ku laab la wax dëgg yàlla ku set la wax dëgg yàlla ku ñoŋ la bi ñu tuumaale sunu yaay Aïcha radiyallahu anha tuumaal ko ci bàkkaar bu rëy rëy te mooy dafa séq ak góor goo xam ne jaamur la ci moom muy safwaan ci la sun borom yàlla indee laay yi di ko setal waaye di jàngale waale lu mel noonu bu amee wala bu amatee sax laay wax ban taxawaay la ci jullit ñi war a am borom bi ne na inna alladina ñi nga xam ne jaa'u bil ifki ñoo indi aw duur ñoo xëy xëy rek indi loo xam ne aw duur la wax joo xam ne du dëgg wax joo xam ne boo ko toppee ba ca cappaandaw ga da nga yëg ne dara laalu ca tuumaal ko sunu yaay Aïcha borom bi ne ñoo ñii day usba ab kuréel lañ minkum boo xam ne ci yéen lañu bokk bi maanaa ci yéen lañu nekk nga xam ne am na ci ñoo xam ne ay jullit lañ leer na nañ ne ay jullit lañ waaye seytaane moo leen man am na ci ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla duñ ay jullit donte moom la ñuy woote woo waaye ak naafeq mu nekk ci ñoom te ka jiite ñooña mooy Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kon borom bi subhaanahu wa taala mënoon naa wax ne ñi nga xam ne ñoo indi duur wii diw la ak diw ak diw waaye su boobaa kon diw moomee ak diw moomee ak diw moomee su leen yàlla xiiree ñu tuub tuub gu sell ba génn ca loola ba yàlla baal leen ba noppi ñu wëlbatiku ñoom saa bu ñu jàngaat alxuraan di gis seeni tur loolu dana metti lool dana metti lool itam ca seeni bokk ndax dañ naan ah lii de moom ba àddina di jeex kenn du fàtte ne diw la woon ak diw la woon ak diw la woon moo tax suñu boroom yàlla daa bokk ci ni muy faje jàngoro mooy bañ a jaar ci tur yi ña nga xam ne ñoo am tawat ja waaye nag dana wax ba ñooña xam ne ñoom la ñuy wax kon daal ñi nga xam ne ñoo sos tuumaal su dee Aïcha indi duru rëy wi ñooña ak kuréel lañ kuréel boo xam ne ci yéen la ñu bokk bu dee naafeq yi moom dañuy woote ne ci ñun lañ bokk waaye yàlla ci beneen barab ci suuratu tawba nee na bokkuñ bokkuñ ci ñun wa yaxalifuuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum borom bi ne laa taxsabuuhu bu leen ko jort moom tuuma ju réy jooju ñu tuumaal suñu yaay Aïcha bu leen ko jort mu ko ne charon aw ay la lëkkum ñeen leen maanaam bu leen jàpp ne ayu kese la bal li am mooy huwa moom xayrun yiw la lakum ñeel leen lu tax yàlla su boroom waxe noonu ayu kese kese woo xam ne raxut ay woo xam ne raxut am na yiw kese woo xam ne raxut am na waaye amul àddina ayu kese nga xam ne lépp ay la sawara la am sawara moom lépp aw ay la dara du fa jàmm dara seddu fa yiw kese itam woo xam ne aw ay raxu ko itam aljana la aljana moom wenn na ay nit fa lépp jàmm jure bay yi la bu dee fii ci àddina nag sunu boroom subhaanahu wa taala moom daa raxe yëf yi da koo raxe léeg-léeg ñu tuumaal ab jullit ku ragal yàlla ku baax lool ku sell lool fekk yàlla daa jublu ca tuuma jooja yëkkati ay darajaam boo xoolee wax dëgg yàlla da ngay jàpp ne lii aw ay la ndax as gor su sell wicc ñu jékki-jékki rek xëy suba tuumaal ko tuuma joo xam ne daanaka dañ ne réew mi loolu boo xoolee lu metti la boo ko xoolee itam aw ay la lay nuru waaye nag du ay woo xam ne daa gën a lëng aw yiw maanaam yiw wala xasu ca biir moo gën a bari kon bu leen jàpp ne yéen moo xam yow yaay baay di Abubakar moo xam yow yaay ndey di Umu Rumaan moo xam yow yaay Aïcha moo xam Safwaan mi nga xam ne moom lañ tuumaal bu leen jàpp mu ko ne lii aw ayu kese la ndax sunu borom subhaanahu wa taala setal gim leen setal ba àddina di jeex ku ñëw di jàng alxuraan day xam ne ndekete da ngeen a set loolu aw yiw la yiwu kese la kon day mel ne sunu boroom yàlla bëgg gi mu bëggoon yiwu kese kese kese jëm ci yow moo tax mu daal di am lu mu xewal loo xam ne yàlla moo ko dogale noona mu amee noona ngir yàlla man caa jaare ngir yëkkati la loolu sunu boroom da koy def lu baree bari yàlla léeg-léeg mu jékki-jékki rek am lu mu xewal ci nit moo xam ab dogal bu rëy la bu dal ci kawam boo xam ne ndekete yiw yi keese moo cay toppaat ndekete bu loolu amutoon mën naa am ah mën naa am lañ gisaat lépp ci aw yiw bu loolu amutoon du amee noonu ci misaal bu njëkkee ba yàgg ñu dégg kuy wax ne asaxiixaani muy ñaari téere yi nga xam ne ginnaaw alquranul karim lépp lu ñuy askanale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari téere yooyu ñoo ci gën a wir muy saxiixul buxaari ak saxiixu muslim bu njëkkee ba yàgg ñu dégg koo xam ne ma nga naan la ëpp ci li nekk ci ñaari téere ay fen la noonu la ko waxe loolu day lim lay nuru nii mooy aw ayu kese la waaye boo ko càmbaree ba ca biir da nga yëg ne ndekete am na lu ca suñ borom yàlla subhaanahu wa taala di dëxëñ mooy lan da nga daal di dégg léegi ñi nga xam ne ay woroomi xam-xam lañ jàng lu jëm ci wàllu xadis ñu daal di tàmbalee leeral ñaari téere yooyu ni ñu gànjaroo ci lislaam ñaari téere yooyu ni xeetu lislaam juboo ci ne lépp lu fa ñëw rek wér na te mën naa am jullit ñu bëree bëri dañ doon dund waaye xamuñu woon ci ñaari téere yooyu dara jullit ñu bëree bëri dañ doon dund waaye buxaari dañ koy dégg rek muslim dañ koy dégg rek waaye xamuñu ñoom ñaar ñooñu li ñu liggéeyal xeetu lislaam xamuñu ko imam buxaari mi nga xam ne li mu indi ci téeréem boobi ci ay xadis amul benn xadis boo xam ne dugal na ko ci biir lu may nga xam ne càmbar na ko càmbar goo xam ne mëni su koo romb càmbar goo xam ne mëni su koo romb wëlbatiku yàlla mokkaloo woon ko ci ay ahadis yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tukki ay tukki yu sori yoo xam ne dara warulu ko lu may lan kum dégg ñu ne am na xadis boo xam ne jële nga ko ci diw mu ñëw gëstu loola te balaa jël ci yow dana am ay melokaan yoo xam ne da koy seet ci yow ci sag maandu ci sag ragal yàlla ci sag mën a mokkal moom ci boppam itam ña jamono woon teeg moom gis ne ku mokkal ku mënoon a mokkal la bokk na jële ji firnde rek mooy bañ koy natt lu toll ci jur lu ma téeméeri nit téeméeri nit ci benn jataay ñu jël benn xadis boo xam ne dañoo róobaate la ñuy wax al asanit mooy càllala ya ngir bëggoon na tuba xam kii nii fànn gii nga xam ne moom lay woote ne da koo xam ndax lum xam la wala déet ku njëkk ki jàng ku ñaareel ki jàng ku ñetteel ki jàng ba téeméer yépp mat mu daat ne ah yow day xadis bi nga jàngoon càllala gii moom la àndal yow de xadis bi nga jàngoon càllale gi la àndal noonu la ko toppee ba téeméeri ñépp mat sëkk ñu xam nag ne nekke dalika fadlullahi yutihi man yasha sunu boroom ni mu sàmmee alquran ba nga xam ne kenn mënu cee yokk wenn xaraf wenn xaraf kenn mënu ko cee yokk kenn mënu cee wàññi wenn xaraf nañ ko doon jànge ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nii noonu lañ koy jànge wenn xaraf mënu cee yokk wenn xaraf mënu cee manqué noonu itam la yàlla sàmme xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy leeral alquran te yàlla mënta wax ne danaa sàmm alquran ba noppi di bàyyi lay leeral alquran te yàlla moo waxoon muhammad damaa wàcce ci yow alquran ngir nga leeralal ko nit ñi xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leeral alquran ku yemoon ci alquranul karim doo xam njàpp sam njàpp du mën a mat ndax gallaxndiko ak saraxndiko amut ci alquran ku yemoon ci alquran doo mën a julli doo xam rukkoo loo fay wax doo ko xam subhaana rabbiyal azim amut ci alquran subhaana rabbiyal ala amut ci alquran taaya amut ci alquran lépp ahadis yonte bi moo ko leeral boo dee julli itam bariwaana ci biir julli gi loo xam ne alquran indiwu ko waaye muhammad moo ko leeral doomu aadama yi ci ay ahadis yoo xam ne yu leer nañu la nga dem ci azaka lañ ciy tudde nisaab mooy boo amee ci or wala ci xaalis lu toll nan ci ngay génne azaka amut ci alxuraan boo amee ay xar lu toll nan ci ngay génne azaka amut ci alxuraan boo amee ay bëy boo amee ay gëléem boo amee ay nag loolu lépp amut ci alxuraan waaye yonent yàlla muhammad moo ko leeral bam leer nañ ci ay ahadisam ku sàcc fu ñuy dagg sa loxo ndax fii ci concole li ñuy la ñuy dagg wala fii ci mbagg mi la ñuy dagg wala fii ci tikki jara bi la ñuy dagg yent yàlla muhammad moo leeral na fii la ñuy dagg fayam toom kon li ma bëgg a wax foofu mooy ni yàlla sàmme alquran noonu la sàmme xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nag nit jóge fële daa di wax ju wax ju rëy rëy fekk ne mën naa am loola ci yàlla da caa bëgg a jaare ngir lu lu bëree bëri leerewaat ca ñu bëree bëri ñoo xam ne dañ doon nelaw ñu bëree bëri ñoo xam ne yëguñu woon lu gaal gi riir yëguñu woon ne imam muslim yëguñu woon ne imam buxaari liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ne maanaam fam ko jaar nam ko càmbare kenn mënta romb foofu te loolu day firndeel ne yàlla mi wàcce woon alxuraan sàmm ko mooy sàmmaale xadis yi nga xam ne day leeral alxuraan xam ngeen ne bi ñu jekki-jekki nataal yonent yàlla Muhammad nataal yu bon yooyu France gis nga la si juddoowaat am na ñu bëri ñoo xam ne fa lañ jaare dugg ci lislaam xamuñu woon kan mooy Muhammad ñu ngi jekki-jekki gis ay milliards ci addina bi ñuy meral Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na koo xam ne dana waaw kii génn jëmu ji nga xam ne ay milliards ci lu ci loo xam ne ñoom jàppuñ ko muy dara caricature caricature lañ ko def rek jàppuñ loolu muy dara ñu gis ay junni ay junni junni génn di def seeni manifestation ñu ne waaw kii kum doon waaw kii kan la ñu ne ah kii de mooy kii nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci jullit ñi ñu ne ah kii nañ ko gëstu ji dem jàng ko ñu koy jàngat ba yëg ne ah ndekete kii kat du ku ñu war a tuumaal ndekete kii kat du ku ñu war a ŋaññi waaye kii ku ñu war a topp la. loolu aw yiw loolu daw yiw aw yiw kese la kon lii ñu tuumaal sunu yaay Aïcha sayidna abubakar yàlla nee na ko na sa xel dal sayidatuna ummu ruumaan mi nga xam ne mooy ndey aïcha yàlla nee na ko na sa xel dal safwaan mi nga xam ne moom lañ wax ne moo def mbir mi yàlla nee na ko na sa xel dal bu leen jàpp ne lii aw ayu kese la waaye aw yiw la ci yéen wallahi léeg-léeg nga maanaa bëgg a maanaa suufeel nit léeg-léeg nga bëgg a wàññi nit ndekete da nga koy yéegal te yëgagu ñu ëpp ci ñi wooteel yàlla jamono ji ak jamono ju mën a doon yàq der yi ñu yàq seen der naan dégg nga ma nii lii moo leen tax a jóg di wax ndax dem seen yéene sax seen yéene te yéene moom yàlla rek ko xam bu ngeen gisee ñu ñuy waxee nii daa am ay financement yu nekk seen ginnaaw dafa am lu ñu leen di financer nangam ak nangam yooyu noonu bu leen jàpp ne aw ayu kese la nit day topp loolu di ko gëstul boppam ba yëg ne ndekete mbir mi demewut nii ndekete mbir yi demewut nii da ngay tuumaal nit boroomum xel day topp kooka di ko gëstu di ko gëstu ba yëg ne ah ndekete kii kat dëgg gii muy leeral kot ndekete kii kat yàlla nee na ji muy wax kot ndekete kii kat Muhammad mi wax kot te doxu ci kenn ndekete moom ci la ci la ko doomu aadama yi bañ a bar benn yoon. su ko defee loola daa di noon buntu boo xam ne benn boroom xam-xam nee na ma nit toog na ci saab jotaay lu ma daanaka nangami at ba benn bis mu ne ma daal damaa bëggoon. nu may fexee ba sunna si yonente yàlla muhammad leer ci saa bopp ne ma man bi may soog a ñëw ci sa jataay bi maanaam faaga faagaagal si laa ma taxoon a jóg ndax damaa déggoon ñu ne da ngay saaga diw mat ñëw di diglu man daal saa su ma ñëwee yàlla nee na laa dégg ngay wax yonente bi nee na laa dégg ngay wax boole ko ak ay teggin yoo xam ne si kiimaan la saa yu ma demee daan na leen ah man de li ngeen ma dox gisoogu ñu ne ma daa aggu daa agseegul ci saaga yi waaye dana agsi ma topp jotaay bi ba mat ñaari at yoo xam ne wóor na ma ne li ngay wax mooy li nga xam ne ci lañu war a nekk li may lijjanti mooy naka lañ ci mën a nekk loolu lay lijjanti waaw kooku bu fekkoon ne tuumaa lu ñu woon kële ndax dana ñëw ci jotaay ba du fa ñëw kon yu bëree bëree bëree bëri yéen a ngi koy gis nii mu jàpp ne aw ay la fekk du ay du ayu kese laa wax metti na nag nga doon ab julit ñu lay tuumaal suba ngoon naan dugg na fi génn na fi waaye nag boo ko xoolee lépp ci cappaandaw ga aw yiw lay doon borom bi nee na li kulli imri'in minhum ñeel na kenn ku nekk ca ñoom ñooñee indi tuuma ji maktasaba la nga xam ne moom la fàggu minal ismi ci bàkkaar ba kenn ku ci nekk ak lañ ca yano tolloo tolloole wuñ ci nag moom wallazi ka nga xam ne tawalla kibra dégg nga moo yanu moom yëf yi far la ca gën a rëy lépp ci moom la bàyyi ko muy Abdullah ibn Ubay ibn Salul moo ko siiwal moo ko tasaare moo ko xamal sax ku ko xamutoon far di wëy di di di di wër di ko tasaare rek kooku borom bi nee na lahu ñeel na ko adabun azim mbugal moo xam ne mu màgg a màgg la mbugal mu rëy rëy nag yàlla ne lu ne rëy na lool rëy na. ndeysaan moom dafa dañ ko ràbbaloon am mbaxanaam ba mu defee ne moo ca nekk ndax dañ ne woon dañ koy fal buur far Muhammad ne cëpp biir Madina far ña ko ne ña ne woon dañ koy fal fàtte ko far benn yoon loola far jural ko sëñ bi iñaan goo xam ne ak soxar goo xam ne dégg nga maanaam mu ne daal lislaam daal da ci xëpp suuf waaw buntu bii nag moom mu far doon ab posé bu rëy mooy tuumaal soxnas Muhammad soo xam ne moom la gën a bëgg ci ay soxnaam saxaaba yépp xam ko muy sunu yaay Aïcha mu daal di koy jàppee nag moom posé boo xam ne fa la jaar tasaare lu bëree bëree bëri ci ay jàngale woon naa ko fii ci ni mu tëddee woon ci jataay bi mu jaam borom bi nee na lawlaa id sami'tumuhu lu teewoon ba ngeen déggee duur wi fen wi liñ sosal liñ sosal Aïcha lu teewoon ba ngeen ko déggee wan na jort al muminuuna ñi gëm yàlla tey góor wal muminaatu ak ñi gëm yàlla tey jigéen lu teewoon ñu njortu lu teewoon ñu jortu bi anfusihim bi maanaam ci ñeneen ñoo xam ne dañoo gëm yàlla na ñoom ci ñeneen ñoo xam ne dañoo gëm yàlla ne ñoom moo xam ñooña ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ lu teewoon ñu jortu ca ñooña xayran lu baax xoolal yàlla sunu borom ni mu bëggee jullit ñi dajaloo ni mu bëggee jullit ñi def benn fii ne yàlla waxut ne bi xayrihim waaye dana bi anfusihim ñépp yàlla daa bëgg ñu jàppe seen bopp genn jëmm mën a jullit ñépp kenn ku nekk dangaa war a jàpp ne maanaa sa moroom yaay moom lu ñu wax sa moroom rek yow lañ ko wax foofu nag xam nga kañ lañ fi àgg waaye noonu la yàlla sa borom bëggee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na misaalum ñi gëm yàlla ci ni ñu bëggantee ci ni ñu yërëmantee ci ni ñuy ñeewantee dañoo mel dañoo war a mel ne wenn yaram wenn yaram wenn yaram loola nag ah ku xalaat ku xool ku càmbar ku lëñbët da ngay gis ne demewut noonu tey ji dañuy lor ab julit ay moroomi julitam ñoo koy lor dañuy xas ab julit ay moroomi julitam ñoo koy xas moo tax li defaru li defaroowut li defaroowut moo ko gën a bari su borom nee na lu teewoon ndeysaan ba ngeen déggee ñuy tuumaal sunu yaay Aïcha kenn ku nekk jortu ci sunu yaay Aïcha yiw lii nag am na koo xam ne ndeysaan ci saxaaba yi def na ko kuy wax abu ayub daa ñëw ci soxnaam ummu ayub ummu ayub ne ko yaa ngi dégg li nit ñi wax ci Aïcha mu ne ko luñ ciy wax mu ne ko ah moom ñu ngi koy tuumaal ci safwaan abu ayub ne kon maa ngi lay laaj yow ndax lii ñuy tuumaal sunu yaay Aïcha ndax bu doon yow da nga ko def mu ne ko xalaatuma ko mu ne ko Aïcha la gën a set moo la gën a laab fuuf kon jàppal ne defu ko waaw yow bi ma toogee ba yàgg ñu daal di may indil ab xibaar ne ma Samba Ndiaye mbaa Samba Diop def na nangam te loolu di lu rëy te Samba Ndiaye naka jekk ci jàkk ji nga ko xamoon naka jekk ci lu baax nga ko xamoon lu teewoon nga natt Samba Ndiaye ci sa bopp xool ba xam loola bu doon yow da nga ko defam déet bu fekkoon ne bu doon yow doo ko def nga ne Samba Ndiaye ma gën a set Samba Ndiaye moo ma gën a laab defu ko. wa qaalu hada ifku mubin li aw duru bér la da ngeen di koy tuumaal mooy li nga xamoon ci moom du soppeeku li nga xamoon ci moom ci ëngëm yàlla loola du soppeeku waaye tey ji xoolal àddina ñu tëddee soo toogee ba yàgg ñu indil la ab xibaar boo xam ne ci sa mbokkum jullit lañ la ko indil dañuy wax ba agara ngeen ah kooku koy xamoon naa ne loolu dana ko dal ah xam nga itam maanaa dégg nga ma xeetu baax baax lu yi moo mën a ñàkk ñaari ba fii fii la lay romb suba ngoon naa ci jàkk jële jëm julli juróom yëpp mu bëgg koo taxawee xam moo moo tax nag caay caay la yoroon ci biir bu ko defee mu mu far soppali ko ab mawdu far loolaay far doon wëppoo wa laa ilaha illallah bis bépp ci yow la ñuy wax duñ xool ne da nga doon dem ca jàkk ja te julli yàlla nee na day day dox sa digganteeg lu bon ñu mën laa tudd kooku waxu dëgg defut loolu ndax bu fekkoon ne moo ko def nii nu ko gisee maanaam muy taxawee lislaam du mën a demee noonu kooku seytaane mënu ko ba keroog ngay gis leneen loo xam ne lu leer la waaye gis nga jullit ñi ndeysaan boo amee koo wax ci moom ñaari baat rek dana am ko wax ci moom lu mat juróomi baat moo tax ndeysaan ñoo ngi dund waaye sori nañ alxuraanul karim lool wallahi sori nañ alxuraanul karim lool ñenn ñi ngi koy jàng di ko mokkal waaye buñ noppee ca mokkal nga xamatuñ ci dara nee naa leen léegi tey ji musaabaxaat yi def ci alxuraan waaw duñ ci boole waale musaabaxaat yoo xam ne ci prime alxuraan lay jëm nga xam ne tey jii da ngay ñëw ñu laaj la ab sumun nga tekki ko tekki bu leer leer ñu xam ne yow mii kat ni nga mokkale alxuraan noonu nga nga xamee ni yàllay wax bu dee bëgg nañ ci xeet wi aw yiw bëgg doon xeet wi xeet nekk xeetu alxuraanul karim faaw duñ yem ci mokkal gi dañ ci boole waale xam gi dañ ci boole waale lan xam li suñu borom yàlla di wax ndax li nga xam ne mokkal nga ko xam li ci yàllay wax ni mu la mën a defere lenn mën lu ko defere moom laay tooñ ndeysaan léeg-léeg ñoo xam ne dañuy nekk ci barab bu baax barab bu baax bu sell benn alxuraan lañ fay jàng wala muy barab bu baax bu sell boo xam ne ëllëg ay jaamu yàlla yu mag lañ fay def waaye mën nañoo bañ a bàyyi xel ci barab boobu mën nañoo bañ a bàyyi xel ci barab boobu ndax yi mbir mi mbirum yëg-yëg la mbir mi mbirum lan la nga am yëg-yëg ci ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi jàkkaarloo ak yow waxtu nekk mi ngi lay bàyyi xel itam ci waxiin wala mi ngi lay muraqaba mi ngi lay fuglu borom bi nee na law laa jaau lu teewoon ñu indi alay ci seen duur woowu liñ ne Aïcha ko def lu teewoon ñu indi ca bi arbaati shuhada ñeenti seede ñeenti seede yoo xam ne dañ naan fekke nañ ko gis nañ ko borom bi nee na fa in lam yatu bi shuhada su fekkee ne indiwuñ ay seede nga xam ne dañoo wax rek bàyyi noonu ne daal Aïcha séq naag safwaan waaye indiwuñ ay seede borom bi nee na fa ulaika ñooñee inda allah fa yàlla hum ñoom alkaadibuuna ñooy ña nga xam ne dañoo wax lu dul dëgg ñooña ñoo wax lu dul dëgg moo ne inda allahi la wax mën naa am ci dëggantaan sax ñoom li ñu wax dëgg la waaye gannaaw sharia daa wax ne lu jëm ci mbirum njaalo faw nga am ñeenti doomi aadama loolu noonu la ko sharia tërale boo indiwul ñeenti seede yàlla dalaa jàppee fenkat donte man ngaa dem ba ca yowmal qiyaama na nga mucc waaye sharia mu du la bàyyi faw mu duma la sharia du la bàyyi faw mu lan la faw mu duma la ndax indiwoo ñeenti seede boo fa nekkee di waat naan waat naa ko ci yàlla nii la demee maa ko gis dañ naa la ana sa ñeenti seede rek boo indiwul ñeenti seede ñu duma yelloonte ne maanaam ci tribunaux yi yelloonte ne ci li ngeen di tudde ay ëtti attikaay ñu fay atte lislaam ba nit ñi mën a tegu ci aw yoon li gën a neex mooy ñu atte la loo xam ne yàlla mi la bind moo moo la atte loolu nga xam ne boo boo tëddee nungu si nitam mooy boo demee kaso da nga yëg ne yàlla moo la atte lii sa moroomam jaam attewu la ko waaye gis nga léegi sunuy moroomi jaam ñoo ñuy atte atte yuñ fonk lool nag fonk ko lool nga xam ne loo ca jalgate rek ñu daal la koy teg léegi bu ko defee loola lum nu indil mooy gën a sori atte sunu borom yi subhaanahu wa taala lum nu jural mooy dem ba yàq jàpp ne sax atte yàlla yi dañ koy jàng ci alxuraan rek waaye maanaam mënutu a ñëwaat mënta ñëwaat mënul ñëwaat mënuñoo demaat ba jëmi jamono ñu naan léegi lislaam la ñuy atte tey jii ku ko fi maanaam yëkkati woon daan ne dañoo war a atte Sénégal comme quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay julli lañ dañoo war a atte lislaam léegi ñu dugal ci kaso boole la ci irhaab yi yu mag yi ndax ñu jullit ñi niñ jàppee lislaam mooy ay duma ku njaalo rey xamuñu ne lislaam lu jëm ci wàllu néegu sëy lu jëm ci wàllu takk soxna lu jëm ci maanaa am passé lu jëm ci wàllu ilaa lu jëm ci wàllu ni ñuy nàmpale lu jëm ci ku faatu mboolem at yépp lislaam daf ko att ci anam gi mën a rafete waaye buñ ne lislaam rek sa xel la muy nekk mooy rey nit ku njaalo ñu rey ko lo ku sàcc ñu dagg loxo ba loola sa xel nekk mais yeneen atte yi nga xam ne yàlla da ko atte ci anam gëm gën a rafete loolu sax lu ci nekk moo tax yàlla nee na kenn gën a rafet yàlla ab atte waaye ci ñi am yaqiin wa man ahsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun borom bi nee na walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu sudul koo na ngëneelul yàlla li mu sotti ci seen kaw ak yërmande yàlla fi dunya wal axira addina ak alaxira kon day la masakum dana dal leen fii ma afadtum fii ci lii ngeen di xuus nii jamono yii li ngeen def mu nekk seen wëppa ngeen di ci waxtaan yéen ñëpp su fekkoon ne du nga neelul yàlla ak yërmandeem addina ak alaxira kon de mbugal mu méttee métti mu rëy dana leen ci dal ku tol ne Aïcha di soxna su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen nekk ci ab deram guddi ak bëccëg su fekkoon ne du nga neelul yàlla ci yéen ak yërmande yàlla yërmande ju mu am ci yéen addina ak alaxira kon day mbugal mu rëy rëy rëy dana xëy dal leen borom bi ne id talaqawnahu jamono yi ngeen koy jokk jolante bi alsinatikum ci seeni làmmiñ kenn ku ne naan nii la demee te xamoo ci dara wa taquluna ngeen di wax bi afwahikum ci seeni gimiñ maa laysa lakum bi ilmu loo xam ne amu leen ci benn xam-xam fekkewu leen ko dañoo wax rek ngeen dégg wa taxsabunahu hayyinan ngeen jortu ne loolu lu woyof la jàppe ko muy lu woyof wa huwa ta moom loolu azim inda allah lu rëy fa yàlla la lu yàlla rëyal la lu yàlla màggal la waaye ndeysaan xamu leen nu mu demee moo tax ngeen di wax ci mbir moo xam ne amu leen ci xam-xam ba noppi wal ba di ko jàppee ko muy woyof waaye lu rëy fa sunu borom la subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jullit dana wax genn kàddu xeeb ko lool kàddu googu dugal ko sawara to mu xalango ci biir sawara ngir kàddu googu juróom-ñaar fukki at wallahi léeg-léeg nga dégg julit boo xam ne kàddu gi muy wax jëmee ko ci yàlla kàddu gi muy wax jëmee ko ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu gi muy wax jëmee ko ci alquran day rëy lool waaye du ko bàyyi xel du ko yëgalu yaramam sax waaw léeg-léeg mu wax ci yàlla lu doy waar jàpp na lu woyof la fekk ëllëg yowmal qiyaam day kàddu googu mën na koo xalamaayool sa waran lu toll ci juróom-ñaar fukki at du àgg wala yaasu billahi taala borom bi ne na walaw laa id sami'tumuhu lu teewoon ba ngeen ko déggee lu teewoon ba ngeen déggee duur wi ba mu toqee ci seeni nopp rek qultum ngeen wax maa yakunu lana jaaduwul ci nun an natakalam bi hada nuy wax ci lii loolu nag du ngeen ko wax du ngeen ko wax ci seen làmmiñ waaye ci seen xol ngeen koy wax lii moom jaaduwul ñu ci wax subhanaka tudd naa sax sell yow yàlla hada lii ñu siiwal hada lii ñu tas ci dëkk bi te mooy Aïcha daa séq ak Safwaan buhtaan aw duur la azim bu mag loolu moo jaadu woon ci yéen yéen jullit ñi xoolal ni mu leen di yare moom yàlla li jaadu woon ci jullit ñi li jaadu woon ci yéen mooy bi ngeen déggee lu mel nii ñu di ko lawti lawtee comme agsi ci yow nga ne man duma ci wax waaye comme agsi ci yow rek nga wax ci lu bëree bëri noonu lay demee nag léeg-léeg ñu tuumaal ab jullit kum ak ci moom rek nga yokku ci nga yokkaat ci leneen daa ne man nag kooku moom jàpp naa ne lu mel noonu mën na koo def daal ndax jamono bi ñuy nekk Bambey mosoon naa ko gis mu def loo xam ne xam naa ne lii man yaakaar naa wa jamono jom xawoon naa gis nga yaa ngi ci yaa ngi yokkaat sax leneen loo xam ne si maanaam waa ji xamu ko woon waa ji bu ko def ah kon kay noonu rek la mën a dem ay bis penji dana day war ya'izukumullah yàllaa ngi leen di waar ngir ngeen bañ a delloote ci lu mel nii ba mukk mukk mukk mukk ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abada in kuntum mu'minin su fekkee ne gëm ngeen yàlla wa yubayinu llahu lakumul ayat yàllaa ngi leen di leeralal ay laayaam xoolal loolu kan la yàllay leeral laay ñun yàlla mi ngi nuy leeral li mu àtte ci nun ngir nu xam ko waaye ndeysaan nun amuñ ci soxla ñu bari ci jullit ñi tey jii yi mujj a génn yépp lijjanti nañ ba xam ko ku ci amoon jollosu sax ku ci am ab portable sax mbooleem loo xam ne da caa nekk te muy loo xam ne mënoo koo ñàkk ci wenn weer nga koy jàng xam ko di ko jëfandikoo nu mu la neex waaye say àtte moom li yàlla àtte ci yow xamu ci dara te jéemoo ko jàng te méttiwul ci yow nee woon naa leen ku réerle ñaari million defoon ko ci poos bi te yëgul ne daa réer. ndax dana am aw naqar ah du amu naqar du amu naqar ndax da yëg yëgut ne yëg yëgut ne maanaam ñaari million réer na yëgu te loolu mbirum àddina dong la bi maanaam boo jëloon ñaari million denc ko ci sa poos bii sa jiba ji nga dugal ko ci mu wadd waaye yëgoo ne wadd na da ngay waxtaan di xaqataay di ree laa wax ndax yëgoo ne wadd na waaye bu yàlla saa borom dogalee nga ree ba kekku ba sa loxo bi dal ci sa poos bi mu wóor la ne ñaari millions yi nekkuñu fa dana am melo woo yor woo xam ne léegi nii nii nga ko yor léegi léegi lii dañuy waxe yow nga ne këmmu di xoole lu tax ñaari millions da ngaa xam li mën a lijjanti moo tax sa diine ji xamoo li mën a lijjanti yowal xiyam loolu moo tax mu réer la meng yëgugu xamoo ci dara yëgugu waaw da ci bàyyi xel sax sunu borom subhanahu wa taala nee na inna alladina ñi nga xam ne yuhibbuuna dañoo bëgg an tashia alfahisha lu ñaaw di tasaaroo suñ jamono ji la gën a gaawe nag tas lu ñaaw ak a yomb ci jamono ji bu dee ab audio la boo xam daa daa daa daa daa daa rëcc audio bu rëcc mën naa am sax sa soxna nga ca doon waxal far ah léegi muur addina bi léegi muur addina bi am na ñoo xam ne moom tas loo xam ne lu baaxut la liñ ci man bu dee aw vidéo ay vidéo yoo xam ne si moom mu gën a dédduwaat vidéo yu baaxut sëriñ bi nga di ko tas muy tasaarooy dem loolu ñaata bakkaar nga ci mën a am kenn daa xam nu mu toll ah waa sëñ bi yow kay nag bu fekkee ñaawte fi xas na dugg ci sa loxo nii te mënoo ci dara itam jox sànni nañ la ko parce que ñu bari bari itam ñoo la koy jox jamono ji moom da ngay toog rek ñu indil la maana sànni la maana lu ñaaw ngir nga tas nga sànniwaat ko keneen ko muy dem rek ah iye auzu billaahi mina shaytaani rajiim jamono ji suñ bi tasaare lu bon yomb na lool ñi nga xam ne dañoo bëgg ñaawteef di tasaaroo fi lladiina aamanu rawat na ci ñi gëm yàlla nag ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm ku wér ah duñ ay malaaka mën nañoo def loo xam ne si seytaane moo leen ci man loola bu fekkoon ne julit ñi ay julit lañ ci nam war a doone dañ koy suturaal ngir bëgg yàlla suturaal leen ëllëg yamal qiyaam waaye dañ koy tasaare ñooñu borom bi nee na lahum adabun alim mbugal mu méttee métti mi ngi leen di xaar fi dunia wal axira addina ak yaay addina ak alaxira koo xam ne tasaare lu ñaaw dong mooy sa yitte day xamal ne bala ngaa faatu bala ngaa faatu yàlla dana la teg loo xam ne da nga xam ne tasaare lu ñaaw baaxut wallahu yaalamu yàlla moo xam wa antum laa taalamuna waaye yaa yéen xamu leen yàlla xam ngim xam te xamu leen moo tax mu tëral leen tëralal leen ay atte yoo xam ne bu ngeen ci jaaree mën a tegu ci aw yoon walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu sudul koo nag nga neelul yàlla ci yéen ak yërmandeem kon yëf yi dana demee neneen sudul koo nag ne wa anna allaha yàlla rauf rauf day ku ñeewante jaam bi rahim day ku yërëm jaam bi ñeewante ku yàlla ñeewante jaam ñi yërëm gum leen yërëm moo tax mu tërala leen àtte yii ngir ñu mën ci àttewu seen xel di gën di ubbeeku ñu yëg ne lii yàlla mi leen bind moo leen àttee nii borom bi ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla laa tattabiu bu leen topp xutuwaati seytaan jéego saytaane yooni saytaane yi saytaane aka bari yoon aka bari yoon yoon yooyu yàlla nee na bu leen ko topp bokk na ca xas ab julit bu jigéen boo xam ne ndeysaan li ngeen koy xase xase sax xele mosu caa dem fekk as gor soo xam ne jaamu ko topp yàlla la xamul ku dul yàlla di ko jaamu ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam saytaane man leen ngeen di wax ci moom guddeeg bëccëg borom bi ne ne bu leen topp xutuwaati seytaan bokk na ca lépp loo xam ne yàlla da koy bañ da koy tere nga di ca jëfandiku bu dee sàngara la bu dee jigéen joo tëkkut la bu dee yooyu yëpp ci xutuwaati seytaan la bokk borom bi nee na wa man yettabi koo xam ne topp na xutuwaati seytaan fa innahu na na ko wóor ne seytaane day moom ya amuru day digle bil faxsha lu ñaaw rek lay digle wal munkari ak loo xam ne lu ñu bañ la waaw seytaane yàlla nee na lu bon dong lay digle seytaane mooy ngóor soo xam ne si noonu laa koy wooye ngóor soo xam ne si xamut lu may lu bon xamut lu may lu ñaaw képp kum tàbbalut ci lu ñaaw moom seytaane rek amagut li mu bëgg ci yow soo dee góorgóorlu ci baax lu baax mi ngi mi ngi mi ngi def la man ngir tarxiisal la nga tarxiis yàlla na yàlla musal ci moom yàlla na suñu borom yàlla musal ci seytaane borom bi nee na walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu su dul koo nag ngëneelu yàlla ci yéen bu dul koo nag yërmaande yàlla ci yéen maa zaka du sell minkum ci yéen min ahadin abada amul kenn ci yéen koo xam ne mën naa sell su fekkoon ne du ngëneelu yàlla ak yërmaandeem saytaane ni mu baree doole ak yi muy rafetal bakkan ni ko baggan bëggee su fekkoon ne du yërmaande yàlla ak ñeewanteg yàlla ak ngëneelam ci yéen kon kenn ci yéen kuy mën a sell du am kon lii nga xam ne moo am ci dëkk bi di ay mbon bon yéen ñëpp a cay tabbi ah waaw te wula di jigéen joo xam ne tëkkoo tëkkoo ko nga ànd ak moom nii ngeen ànd fu ngeen mën a dem nag moo moo xam fu mu doon nga nekk fa sëñ bi bam bam neex la nga ñëwaat kenn du yëg lool lool yaa ngi xam ñu koy def te léeg-léeg dañ koy def ba pare di ko nettaliwaat di toog di ko nettali man de man de réew mi jaaxal na ma xanaa nit ki day def lu bon fanaane koo def ba noppi xëy di ko nettali ah waaye sëñ bi loolu itam ah yow yaa ngi fanaane def lu bon yàlla suturaal la nga xëy di ko nettali naan bi ci guddi def naa lii def naa lii def naa lii auzu billahi min salaatu rajim loolee li la ko tee def du dara lu may ngëneelul yàlla ci yow ak yërmaande yàlla ci képp bu la yàlla bàyyi woon nga yem ak ñëpp wallahi ku yàlla bàyyi woon nga yem ak ñëpp ñu bëree ngi fii maanaa di bàyyi ay julli du amuñ ci soxla dégg nga ma sëgg ci yoo xam ne yu araam la te yooyu yëpp neex na ci bakkan ndax bakkan daa bëgg nooflaay la tee yow waa lu tax waxtu fajar jot jamonoy sedd nga yewu ci guddi gi di jàpp ci ndox mu sedd guyu boo noppee waaxu jëm ca jàkka ja te ngay waxambaane toll ci sa digg doole am ñoo xam ne dégg nga ma waxuma la yeewu ci guddi gi di waaye dañuy nelaw ba ay dix heures ñu yeewu fudd dégg nga ma nga defee ne dañuy julli ñu laaj ndékki li bu ñu paree ne siw julli saa sam bokk ci programme bokk ci programme bokk ci programme bi loolu bokk ci programme waaw ba ngeen dajeeg yàlla billaahi ku ci dajeeg yàlla da nga xam ne yàlla julli la santaane laa wax ku ci dajeeg yàlla da nga xam ne yàlla ci boppam ja ba mu lay bind yow dégg nga nga jaamu ko moo tax mu bind la dégg nga lii nii sëñ Daawuda lii lan moo ko tax a jóg bi ko tubaab bi liggéey wax lii koo ku ko jëloon di ko pese nit wala nga ci yëngalub laax lii nga ci yëngal ab laax ñu am xel ñëpp danañ xam ne yaa ngi def loo xam ne yow mi est-ce que nit nga yow est-ce que nit nga nit ku ne lëng laa la wax yàlla bind la ngir nga jaamu ko ngay def leneen est-ce que nit nga est-ce que nit nga est-ce que nit nga te nar a dugg ci biir bàmmeel bëgg faa am ay nangami at sëñ bi war a dekki war a daa jàkkaarloo yàlla loo koy wax lan lan nga koy wax may seeraal suñ bopp bala ñoo génn àddina borom bi ne na wallaahu yàlla samiun aji dégg la waaye alimun aji xam la su ma jullee insha allahu ba noppi danaa àggale li des ci li ma lootaabe woon asalaamaaleykum wa rahmatullah